ginnaaw bi sant yàlla. nee na gannaaw bi ñu sante yàlla. di ko sant itam. nee di ko sant itam. bim ñu booleel. bim ñu booleel. ci njabootuk Serigne nee ci njabootuk Serigne Touba. lu tax. nee lu tax. xulubu jumlati alladina aflahu. nee xulubu jumlati alladina aflahu. liya. liya. tawajjahat. liya tawajjahat. wa rabbil muslih. wa rabbil muslihu. musal nañu ci. nee musal nañu ci. xulubu man lam yuhibbuni. xulubu man lam yuhibbuni. ala wajalin. ala wajalin. te nag. te nag wala yulaquuna ma ramma walal babba wa man taallaqa bi yen najaa ci lan min kadari dunya ne gis nañ ko tey wa fii yow min najaa ñu ngi koy sant ne ñu ngi koy sant ba mu ñu tànnalee ba mu ñu tànnalee ci biir kër Serigne ci biir kër Serigne Touba gidd nee gidd assaaliha assaaliha lin qaadatil ujuur wal masaalihu lin qaadatil ujuur wal masaalihu bi tayyi bi wal jasbi yan jamono yan jamono wa inni saalihu ngi sant sunu nee ñu ngi sant sunu borom ci fekk gi ñu fekke gi ñu fekkewaat bi ci waajal nee ci waajal màggal gi waajal fukki fan ak juróom-ñett. waajal fukki fan ak juróom-ñett. ci weeru safar. ci weeru safar. kun koy waajalal. ne kun koy waajalal. mooy ka nga xam ni. mooy ka nga xam ni. sunu borom moo ko roof. sunu borom moo ko roof. ilmun. ilmun. min la dunni. min la dunni. moom. ku dul moom. ilmun. ilmun. min ladun xalq. min ladun xalq. moom nag. moom nag. ilmun. ilmun. min ladun nii. min ladun nii. ci <laughs> mooy ki yàlla tëbb ay mbootam. mooy ki yàlla tëbb nag ay mbootam. te jaarelewu ko ci kenn. nee te jaarelewu ko nag ci kenn. xëy na dallani yàllaahu. xëy na dallani yàllaahu. ala muhammadin. ala muhammadin. daanañ ko dégg. daanañ ko dégg. waaye bi ñu ko bindee. waaye bi ñu ko bindee. dañoo toog douze ans. dañoo toog douze ans. doo ko yeggale. doo ko yeggale. wan qaadali. wan qaadali. li samadi. li samadi. wala boog. wala boog. dallani yàllaahu. wara ala xayril wara wan xaadali wan xayral wara xayral wara lisil wara lisil wara bis bi ñuy waaj ne bis bi ñuy waaj ba tax daayira yëpp ba ñi leen fi jëmmal teew fi ñi leen fi jëmmal teew fi maa ngi sant mu ngi sant kuréel gi njëkk a jàng kuréel gi njëkk a jàng di kanzul muhtadina di sant di sant. kuréel gi ci topp. kuréel gi ci topp. muy Riyaadu Saalihiina. muy Riyaadu Saalihiina. di sant di sant. kuréel gi ci topp. kuréel gi ci topp. daayira Fat Jaxate Grand Médine. muy daayira Soxna Fat Jaxate Grand Médine. seen njàng mi sagal ngeen ne seen njàng mi sagal ngeen ko. ku dégg seen njàng mi ku dégg seen njàng mi. xam ni yéen tegu ngeen ci yoon. xam ni yéen tegu ngeen ci yoon. ndax xasida yi Sëriñ Tuubaa yi. xasida yi Sëriñ ku ko fi leneen loo jàpp. nekkoo ci dara. ni nekkoo ci dara. xasida yi mooy fóot nit. sëriñ bi ne xasida yi mooy fóot nit. ba mu set ba mu set. mu mare la ko ak mu mare la ko nag ak boroomam kon ku ci sax rek. ku ci sax nag. war nga sant sa borom. war ngaa sant nag sa borom. bu wér ñu ngi sant sëriñ bi ne ñu ngi sant ku tedd ki bu baax. dama dégg benn waxtaankat. dafa dégg nag benn waxtaankat. ci benn euh, ci benn band. ku mën a waxtaan. ku mën a waxtaan. te baax lool. te baax lool. te baaxi bokk lool. te baaxi bokk lool. te am xam-xam lool. te am xam-xam lool. waaye nag. waaye nag. ma wax ko ni ko. mu wax ko ni ko. wax nga baat bu ma jaaxal lool. wax nga wax nga baat bu ma jaaxal lool. dañuy Sëriñ Tuubaa. daf ni Sëriñ Tuubaa. jàppewuñu ko yàlla. jàppe jàppewuñu ko yàlla. Sëriñ Tuubaa du yàlla. Sëriñ Tuubaa du yàlla. daa di daa di ni. yàlla. yàlla. mooy yàlla. mooy yàlla. yonent bi. yonent bi. di yonent bi. di yonent bi. Serigne Touba. Serigne Touba. di lu kenn xamul. di du lu kenn xamul. ma ne ko gaa yi nii day gaa yi yuuxu. ne gaa yi yuuxu. mu ni déet. taxawal taxawal. comme yàlla existé na. comme yàlla existé na. yonent bi existé. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam existé. bàyyil sunu waa ji mu existé. ne bàyyil sunu waa ji nag mu existé. <laughs> soxna daa ñëw sukk ci kanamam. ne benn soxna daa ñëw sukk ci kanamam. ni ko mbàkke day. ni ko mbàkke day. bu yàlla ak yonent bu yàlla ak yonent bi wéyee. mu ni bëreet ba ko fa. ko kon ma wéy. ni ah, man Ahmadu ma fu su yàlla ne. ne fu yàlla ne. rasulullahi ne fa. nee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne fa. xorom sa. nee xorom sa. xaadim rasul. nee xaadim ki indi muridullahi. ki indi muridullahi. gëm gi ñu ko gëm. ne gëm kii ñu ko gëm. ak ni ñuy doxee ak moom. ak ni ñuy doxee ak moom. jaaxal na sariya. ne jaaxal na sariya. waaye jaaxalul nitu xaqiqa yi. waaye jaaxalul nag nitu xaqiqa yi. comme nag ñun. comme nag ñun. dañoo wérul. dañoo wérul. ci sunu ngëm. ci sunu ngëm. nanu dellu ci alxuraan nag nanu dellu nag ci alxuraan nag. en tout cas. en tout cas. fa inni tabaxtani fa inni tabaxtani. falaa tasalani falaa tasalani. an shay'in an shay'in. hatta uhdisa. hatta uhdisa. laka laka. minhu minhu. zikra zikra. ak murit a ngi noonu ne ak murit a ngi noonu. jox la sa bopp. ne jox la sa bopp. addina ak alaaxira addina ak alaaxira. mel ni mel ni. malaat malaat. bu jox sa bopp bu jox sa bopp. docteur docteur. yow yaa ngi dem ci médecin bi. yow yaa ngi dem ci médecin bi. sa yaram képp ne yow sa yaram képp yóbbu la wëlbati la nu ko neex. mu wëlbati sa yaram nu ko neexee. jam fu ko neex ne fu ko neex. noppi jox la ordre ne noppi nag jox la ordre. na nga bàyyi suukar ne nanga nga bàyyi suukar. ak li nga koy bëgg li nga koy bëgg-bëgg. na nga bàyyi diw eh na bàyyi diw. na nga bàyyi ceeb na nga bàyyi ceeb. na nga bàyyi yàpp na nga bàyyi yàpp. nga bako ne nga bako ngir sa sant ngir sa sante waa léegi waa waaye léegi kii sàmm sa sant ne kii sàmm nag sa sante ngir mu wér nee na ngir mu wér docteur moo docteur bii sàmm sa ruux bii sàmm sa ruux ngir nga wér ngir nga wér ne bu gën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 sëriñ Touba dañoo bëgg a dimbali. waaye waaye sëriñ Touba daf ñoo bëgg a dimbali. moo tax mu ni mu ni mu ni woo ci. moo tax mu ñuy woo ci. añ bu sotti bi nee añ bu sotti bi. nañ lekk nag. waaye waaye nañ lekk. te buñ ko xajamal nee te buñu xajamal nag añ bi. kon nañu wàcc. sëriñ bi ne nañu wàcc. te dem Touba te dem Touba. màggali ci jàmm. nee màggali ci jàmm. jóge fa ci jàmm nee jóge fa ci jàmm. continué na ci jàmm nee continué na ci jàmm. ñëpp ne ci jàmm. nee ñëpp nekk ci jàmm. bu fa jógee nee bu fa jógee. ku bëgg a tawat nee ku bëgg a tawat. da nga tawat nee da nga tawat de. waaye ku bëgg a wér waaye ku bëgg a wér. wér ba faaw. la ilaha illallah na ma tawat kay waay waay ku na ma tawat nag ku jóge ci màggal ne jóge ci màggal ku jóge ci màggal ne ku jóge ci màggal loolu na mu gis ko nee loolu na mu gis ko na mu wér ne na mu wér wér na mu wéradi ne mu wéradi wéradi ne na yem ci yow képp ñun dañuy dem Touba waay waay sëriñ bi ne ñun dañuy dem Touba jóge fa di wér jóge fa nag di wér ba faw dañ ko mënta wax rek. nee dañ ko mënta wax. Sénégal gi nee Sénégal gi. benn microbe desatu fi. benn microbe nag desatu fi. Seera Fall lijjanti na lépp nee Cheikh Ibrahima Fall na lépp. sagal sagal na murid nee sagal na murid yëpp. Seera Fall dana nu bàyyi. waaye Seera Fall dana nu bàyyi. ak li mu daj ak li mu daj. sunu diggante nee sunu diggante. ak Serigne Touba ak Serigne Touba. ñuy jàq ñuy jàq. bale na lépp nee Cheikh Ibrahima Fall bale na lépp. dañ ko mënta wax rek waaye dañ ko mënta wax. dara desatu fi nee dara desatu fi.